dañ fee ñew ci ndigalu bureau national UNACOIS Yessal ci président Cheikh Cissé fekk ci suñu wëlëré suñu doom nday sahir Ahmadou sahir Diop ci département Mbour sahir mom mérité na sax jiite UNACOIS Yessal parce que li tax nga mëna mi ngi ci mom moy lan dogu gëm li ngay def UNACOIS jaral lu ne ba paré nga nek opération économique taxawalukat mënul jiite UNACOIS parce que kat bu jiite UNACOIS dina jiite ay liggéeykat UNACOIS liggéey rek mo fi dugal nit kenn du nekk mar carte de membre naa koy def man maa ngi koy defal carte de membre UNACOIS le président moo koy signé mais kenn du ko nekk te indi loo sa registre de commerce prouver ma activité yi ngay def première mooy premier élément dinañ xam aussi fooy defee sa activité donc képp kuy membre UNACOIS am nga entreprise wala yeneen entreprise c'est une obligation alors ñu ñëw nag pour xool liñ fi liggéey dañu war a inauguré bi dañu war a inauguré bureau bi ëllëg dana jàpp date bi après dañu yëgal mais bu boobaa saxir dana ci dox li mu war a

foog naa exemple ci liguey que ça soit commerce mais ci napp mi ci walu tourisme mais surtout Mbour dafa wara nek pôle industriel moy lu bari lu ñu importer tay importation mënul ñak parce que jamono mo doxee nonu wa amna lo xam nañ ko defar ci réew mi te suñ ko defarul ay nit ñoo fi ñew jël suñ matière première yóbbu ko bitim réew transformé ko ñu jaar na ko lu cher lolu amna lu ko gën lu ko gën moy ñun ñu né dañuy industrialiser Sénégal mbuur ni mel ci Tunisie nga xamné ne pôle industriel la mbuur mën na ko nekk ëllëg espace té lolu ci lañ nek et enfin wala bok ci walu wowo mënu ñu dëkk ci di importer rek parce que bo dé importer rek ya ngi créer li ñuy wax déficit balance commerciale mais bo dé créer une euh, euh, euh, usine fi di liggéey ya ngi liggéeyaloo ay sénégalais ya ngi créer emploi té ben emploi bu nek Sénégal xamné né famille bo gis rek da famille élastique la kër gu ne amé kenn ku fi liggéey rek daanaka mo yoré ña ci dess dañu bëgg nag nit ñi di liggéey surtout xalé yi am diplôme surtout ñu am ay niveau yu si surtout ñu am expérience surtout suñu ingénieurs yi ñuy liggéey ci usine yi Sénégal di ci liggéey muy jur lu bari ñuy consommer aussi té mu né qualité bu baax bo xamné nous état bi dana ko mëna jappalé ba mu concurrencer produit bi joggé bitim non ci ñun wax dégage parce que wax dégage taxul dégagé. mais du caageen nag dañoo d'accord ci li Auchan def yëpp parce que waxuma ko sànq mais mën naa wax ci wolof ñun dañu wax Auchan boobu ma koy jaay dosette ay lu jar jaay ko ceeb donc am na lu mën ak lu mais Auchan aussi mënul remplacer bitik bi ci koñ bi parce que fuma dëkk ci HLM man damay wacc sama immeuble dama yor boutique bi nako jox ma carte 5000 francs crédit mais dafa mako jox au champ ma ko defal mukk ci aduna pourquoi ta aussi man na tol digënté nek le 25 le 26 man sama soxna dem ci boutique mu jox la mais bu ñëwé daan monsieur dien si na ma signaler këyit mu jox ma bu wër bi dee ma fay ko mais champ du la defal loolu mukk au champ du ko def kon ci euh, boné au champ de gage xamulo luy commerce international parce que dañu dañu nek ci aduna bu libéralisé Sénégal sax euh, euh, commerce de libéralisé mais surtout bien bi yëpp léegi ñëw affaire frontière amatul à part de 2020 a fourni nak ñu jógee Europe ñeu fi di créer emploi te aussi obligation de ci Auchan ñu exposer 60 de de leur étalage ci produits locaux obligation de ci ñom 40 des produits produits mais lool nañ ci sax ñu parce que qui jaay carotte kii jaay salade kii bay mais war nañ gis boppam ci réew aussi te ñoom am nañ 300 fournisseurs liggéey ak ñoom di liggéeyloo 1500 emplois duñ duñ la nag li ñu def lépp baax na parce que lu ci baaxul ñun am nañ sañ-sañ jàkkaarloo yéen jàkkaarloo ñoom leen baaxul mais ci gàttal amna côté positif amna côté négatif waaye tey bu ñu nee Auchan dégage nañ wax Chine dégage nañ wax France dégage nañ wax Inde dégage mais loolu bu ko waxee aussi Sénégal yi nekk bitim réew lu ñu leen wax lu ñu wax Sénégal yi leen comme li xew Afrique du Sud donc réew àdduna bi dañu jaxasoo lënkaloo économie non la mer surtout règle commerce OMC xarala yees imposé wu na feneen furu ci commerce ni mu imposé wu ci commerce bi tey noonu não imposé même ci média yi noonu la imposé ci ci ci médecine noonu la imposé ci aéronautique mooy lan déjà économie fi mu nekkoon 30 ans ci ginnaaw nekkatu fa te xam nga lan moo ko portable parce que tey portable tey banque la pharmacie la quincaillerie la lu ne la à part portable tey mën nga toog fii di communiquer ku nekk bitim réew ngay régler loo xam ne tey sa su jëloon avion dem fa sax du ko mën régler te portable mi ngi koy régler loolu mooy numérique moo imposé wu kenn mënu def lenn sans le numérique tey ku ci liggéey ci internet boo ba perdre signal rek da ngay lekk bu nekkoon sa kanam sa doo bëgg a lekk tant que jotoo signal bi pour ko ne sa liggéey yéen xam ngeen ci leen xaar ngeen war def envoi su internet coupé ñoom dootuñu leen mën a jot yow doo leen mën a jot ku ci sa portable heure 24 heures da nga tàggoo ak sa sago tant que jotaatoo ci produit la mooy Euh, dañu am ay matières premières surtout les euh, mais ay mais euh, ay ay ay ay membres qui sax Inde ak Japon ak Chine ak Canada Ken la vice présidente expérience am ba am marché international fexe sax bam ñom dajé nañ ak mom chambre de commerce té dañu fi ñëw and ak ñun inshallah allah lan tay produits locaux tay matière première la bo xamni ni nii mën indi lu né tay man suma sañon duma ubi canette bu jóge bitim réew di ubi ubbi di naan fii su ma unité industrielle moy défal canette mu ubi ko mu nekk buy wala mu nekk bisaab wala mu nekk juré di tax wala mu nekk confiture di tax tay moy sama yéné même bu chéré cher jar ko parce que temps yi ngoy def di fay rek yaa ngi satisfaire besoin naturel bo soxla mais enrichir koo xam ne ni mi ngi liggéey ci loolu mais enrichir nga aussi ka nekk ci tool yi di bay muy bisaab donc tey euh, produits locaux yi dañu leen war a promouvoir te foog naa bokk na ci li euh, euh, ma informé leen ne maa ngi siégé ci comité de pilotage bu ARM mooy agent de agent de régulation des marchés tey pomme de terre ak soble bu ñu ko produire dañuy arrêté importation yi ba production locale jeex ñu doog a bàyyi importation bu dugg loolu bees la te commerçant dañ ci ànd état bi di ko doxal kon lépp lu jëm ci promotion produits locaux INACO ASL a ngi ci danañ ci ànd ak jigéeni Mbour danañ ci ànd ak jigéeni Pikine danañ ci ànd ak jigéeni Sénégal yëpp